Sénégal yàlla dafa def ñoom ñu bëgg loolu ba am ci euh, ay formation am ay qualification yu am doole léegi nag euh, ñun suñ programme mooy dañuy développer le transport maritime transport maritime dafa am yu bari yu ci nekk euh, mooy am na transport passager am na transport tourisme am na transport marchandise am na transport pétrole am na transport yëpp yu nekk ci biir. waroon nañoo mën a wax fu nit di dem ci Sénégal mën nga ko ci dem par bato wala nga yóbbu sa marchandise nga di ko yóbbu par bateau te loolu bu amee day wàññi coût yi day wàññi pollution bi. Ah, day day day nekkaale loo xam ne dafa am sécurité e loolu nag day war a ànd ak ñoom ñu jox leen seen cër former leen uh, ba nga xam ne nii parce que métier bu compliqué la bu metti la et, et je pense que loolu moom ci suñ programme la bokk te ba nga xam ne nii Euh, étranger yi nga xam ne dañuy ñëw den di concurren concurrencé fii ay pavillon sénégalais yi ñu am ñu wax ne sénégalais rek koy def dawal ñu gën leen a jàpp nag seen xam-xam gën a yokk kon man dama jàpp ne secteurs yi ñu nekk yëpp pour ñu booster ko da ngay wax ak acteurs yi acteurs yi ñoo war a mën a wax la cay baax du ministre bi mooy toog wala directeur bi mooy toog ne def leen lii déedéet acteurs yi ñooy ñëw ne lii mooy baax yow leen di wutal mooy ne leen lii la def leen ci cadre boo xam ne nii cadre bi dana nekk cadre bu réglementaire nga xaar nag di xaar sa résultat. doo toog naan dama lay jàppale parce que moo jàppale bi moom la ñu war a dindi li ngay war a def mooy nit ki euh, da nga koy euh, jox li nga koy jàppale ndax dañuy wax ndimbal na ci fekk loxol borom mooy yow li ngay def mooy ñoom xam nañ lii metti ci ñoom defal la benn plan nga d'accord ak ñoom ci benn euh, contrat de performance ñoom ñu xam léegi nag. nan la secteur bi di doxe comme ni ko président waxee vraiment euh, ñun euh, ndimbal lañ soxla parce que sunu métier bi dafa sooke dafa sooke ba nga xamante ne nii euh, jën amatul ci dëkk bi fi mu ne pétrole bi la xale yi yaakaar te gis nga ko formation bi doyul formation bi doyul plus de trente et quelques mille marins vraiment mois passé rek la ñu formé cent et quelques personnes. vraiment ñu buggoon na ku ñu dimbalee euh, formel ñu xale yi bu pétrole bi ñëwee ñu bañ a jël benn étranger. ci moom liggéeykat la moom liggéeykat la am na xam-xam vraiment moo tax yàlla yëg si ko fii mu yëg si fii liggéeykat la moo tax ñun ñu choisir ko parce dem nañ ci ku nekk ah ku nekk tàll nañ ci suñu loxo mais jàppalewuñu ñun daal ku jàppale ma rey lañ bëgg. li mu ñu wax doy nañu parce que nee nañu daal vraiment pare na pour jàppale ñu.